الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوشي تي في جسان فيدوبي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باقي yi ñu نيو leen di زيارة di leen ziyaara te di leen suñu rakk yi ak suñ doom yi bàyyi ñi nga xam ne ñoo àndoon ñëw Nigéria ngir fekkee si màggal gi nga xam ne moom la ñuy màggal bésab juddu baay bi tabarkalla allah ñëw nañ ànd kuréel yu bari waaye mën nañu wax sax ne ñi ñëwatoon ci Sénégal sax ñu ngi ànd ak ñoom ci lépp loo xam ne lii lu fi xew la ndax lu ci nekk teg nañ ci seen bët teg nañ ci seen nopp xëy na sax nañ ko gisee ñoom moo gën màgg gën rafet itam ni nga xam ne ñun noonu lañ ko doon gisee ndax ñoom dañoo nekk foo xam ne bii dañuy gis lépp te ñun fi ñu nekkoon suñ bopp rek lañ mënoon a gis ak fi nga xam ne fi lañ toll waaye mbooloo mi tabarkalla macha allah foo ko natt rek passé na ko Eh, ñu ñëw fekki réew yi nga xam ne ñoo seq Nigéria yëpp te taalibaay bàyyi nekk fa ñëpp ñëw nañ amul benn réew boo xam ne bii mën nga koo tudd ci Afrique lu may am nañu fa bàyyi ko ñëw <coughs> macha allah bés eh, bi doon loo xam ne lii kenn mënu ko nettali ci làmmiñ xanaa rek ñi nga xam ne dañ ko gis ci seeni bët eh, ñu am mbég ak kontaan ci yëf yi ni mu demee di ñaan yàlla màggal yoola baay ndax lii lépp eh, moom moo ko waral dañuy wax ne lu jën njàggal eh, te moom moo njàgg kon ñu ngi ñaan yàlla mu saxal lii te itam yàggal ko ba nga xam ne eh, at mu nekk bu ñëwee rek dafay raw at ma nga xam ne mii moo ko jiitu woon yàlla jotal ñépp seen bëgg-bëgg ak seen càkkutéef ak seen mébét barke seen yëngatu barke seen dal yàlla jàpp ci loxol kenn ku nekk ci ñoom jëmee ko ci lam bëgg ak lam gërëm loolu yàlla mën na ko yan dañu ko yàlla defal ñu ngi sant bu baax ñu ngi gërëm ñu ngi ñaan yàlla di gërëm itam eh, suñu rakk yi nga xam ne tubarkalla macha allah ñu ngi àndoon ak ñoom ñu ku nekk ci ñoom jox ñu cër ci boppam boo xam ne bii eh, du cër boo xam ne bii sax mën nañ koo mën nañ koo melal ngir dafa jéggi dayoo ci rafet. dëgg-dëgg ñun loolu yellawuñ ko sax waaye ñoom tubarka la jox nañu ko ba ma sëkk dara màggiwu ci loolu nag daf ñuy gën a tashjeer pour rekk ñu continuer ci li nga xam ne dañ ko fekk baax doon loo xam ne bàyyi ak baayam ak maam yi maam Matar yëpp loolu ci lañ nekkoon dafa fekk nag bàyyi màggal na ko feeñal ko ci anam goo xam ne gii dafa daj àddina bi yëpp ñu ñaan yàlla loolu yàlla saxal ko mbir mi dañuy wax ne man sanna sunnatan xasanatan fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmi alqiyaama képp koo xam ne kii sunna sunnaal na sunna subaax yool ba moom la ñeel ak yoolab képp koo xam ne kii jëfe na ko ba ila yawmil qiyaama lii mën nañu wax ne sunna si Cheikh Abdoulaye la woon ndax moo di ki nga xam ne moo ko njëkk a woote ci tey bañ a seen woote bés boo xam ne dafa woo doomi bàyyi ak seen doomi bàyyi yëpp ak taalibe yi ak mbokk yi ak xarit yi ak sappe yi jàpp bés boo xam ne bii ñépp dañoo dajale dajoo ca Taïba Niassène ñuy jàng alxuraan ñi di def dogi salaatul faati mu ne ndax ñu def ko mu nekk ni njukkal ni ak Baye ndax Baye liggéeyal nañu loo xam ne lii dëgg-dëgg kenn mënu ko fay e, loolu nag mu ne dañu war def loolu ngir génnee ko njukkal waaye moom itam sunna la soo xam ne si moo ko sunnaal ci ñun ba léegi ci doomi baay yeeg xarit yeeg soppe yeeg mboolem taalibe yi ci fu nekk ci àddina fan lañ ko njëkk a defee mooy Taïba Niassène biñ ko defee Taïba seen Nigéria ñaan ñu def ko fi mu nekk nii ñu ngi koy def ci àddina bi yëpp at mu jot ñu def ko fii te buñ ko defee fii fekk na ñu ngi ko defaat ci yeneen place yu waree bëree bëri ci biir réew mi ñépp ñoo xam ne ñi mënuñoo ñëw ak si fii dañ koy def ci sa place seen place fañ nekk eh, loolu yëpp su na si Cheikh Abdoulaye la kon nag moom itam eh, yool bi nga xam ne eh, yàlla jox na ko ci dëbbe gim dëbbe loolu eh, mu nekk di sunnaam eh, te yonent bi dafa wax ne ku sunnaam sunnaam su rafet yool ba moom la ñeel ak képp koo xam ne kii jëfe na gannaawam booba ba léegi nag mbooloo ay mboolee mboolee mboolee ñu ngi koy jëfandikoo waxuma ci réew bi fii rek waaye fu nekk ci àddina bi fi nekk nii te loolu moom lañ ci rey kon loolu moom itam yool boobu yàlla jox na ko ci loolu ñu ngi sant di gërëm ñu ngi ñaan yàlla di dool di feddali itam cant ak ngërmande ci Al Fayda eh, bi nga xam ne Fayda moom kalaamay ci kalaamay bàyyi eh, rafet na ci biir ak ci biti ki nga xam ne kii itam moo ko jiitee muy sëñ Ibrahima mënoon naa doyloo rek yónnee ndaw mu ñëw teewal leen fi waay moom dafay déplacé mu jot moom ci bopp jëmi boppam ànd ak ay jumtuwaayam ànd ak ñi nga xam ne itam ñoo koy dimbale dëgg dégg loolu moom itam ñu ngi koy sant di koy gërëm ndax fi mu nekk nii tax na ba lépp loo xam ne ñu ngi koy def ci fii rek dafa mel ni àddina bi yëpp eh, ñu ngi ñuy gis ñu ngi ñuy dégg eh, te yàlla itam ji koy moo def loolu kon moom itam am na cant ci am na ngërmande ñu ngi koy ñaanal yàlla gën ko dimbale ba nga xam ne dana gën am kattan loo xam ne moom lay defee li nga xam ne moo leen ñu ngi leen sant ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñu ngi nuyu ñëpp. wala di kàlla bi um, Ilorin uh, Kwara State for Maulid Maulana Shalaji Ibrahim Niyas. Alhamdulillah, we are celebrating the Maulid of Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. And this will not be the hand for all of us. Bijai Maulana Shehu Alaji Ibrahim Yes, وصلى اللهم دام shaykh شيخ برقامه على خسل الوصول من بني أدنان برقامه ألوف الألكما ألوف صفي الله برام لا وتائس من كل مرو فالغوث برام وسوق من سجا يا كاكي يا سول خلق بابانا إلى كو خلق يا توكل سما موني كوني برام سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله لا إله إلا الله laa ilaaha illallah waa Kossy TV am ngeen ngeen yéen ñi ànd ak gaal liggéey fay du baay bi Sidi Barhama Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd baay yéenay liggéey fay du baay bi Sidi Barhama ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy